munu am munu am seen fay yéen waaye dañ leen ñaan rek parce que ñu ngi xaar aussi à Bignona dañ ñëwoon dañuy continuer dem Bignona doog a ñëw waaye xam nga waa Ziguinchor rek ak seen dër ñu ne kon nañu dugg def boulevard bi ba egg 54 dem taxawaay bu gàtt la yéen waa Ziguinchor dama leen andil sama rak sama xarit ci suñu candidat ñun ñëpp muy Bassirou Diomaye Faye waaye léeg-léeg buur xajal jaam parce que du xëccoog moom dara ma andil leen ko leen wax ni ku voteel Bassirou Diomaye dafa mel ni voteel nga ñaari yoon Ousmane Sonko jarul ma koy wax fii sax ndax fii mokk na ba pare fii combat wax naa gars ni fii ak Bignona ak feneen su mel noonu mënoon nañ fa bañ a waaye comme yëg nañu ba fii li ma di wax rek mooy ku woteel Diomaye dafa mel ni woteel nga Ousmane Sonko ñaari yoon. yéen ñëpp xam ngeen injustice yi nga xam ne teg nañ ñu jaay ñu doole ngeen ànd ak ñun taxaw jàmmaarloog seen Ousmane Sonko du candidat yar xam ngeen ni ñun dara suñu ci gor lañ ñu yar ci lañuy dund ci lañuy ñuy candidature c'est pas une fin en soi waaye est-ce que injustice yooyu ñu teg bëgg ngeen ko faj yéen bëgg ngeen ko faj solution baa ngi nii kon du ci wax bi dama leen di jox le candidat Bassirou Diomaye Faye le président de la République à partir du dimanche prochain incha allah boo ko ci kàddu yu gàtt ngeen may ñu nag ñu continuer dem di ñëw nag ñu leen di gërëm bu ndaw mooy xam ngeen ni coalition Diomaye président mooy coalition bi gën a tey ci Sénégal loolu la yàlla tudd. dañoo ànd ak ay kilifa yu bëree bëri bëri yoo xam ne mënu ma leen lim fii waaye dañ leen di gis léegi ci camion ñooñu ñëpp ci coalition Diomaye Président lañ bokk bàyyi seen yitte bàyyi seen projet bopp loolu la ñuy am ñu jóg yeggal liggéey bi. ba bëgg ngeen jàppale ñoom ñëpp pour ngeen jëlee la coalition Diomaye Président lañ si président donc Liverpool. Notifikasi şehirlerinde endişe duvar, haber, haber, haber, haber. Benim vakti itu waktu yang dulu aneh. Budon rek elektrodi fizikation la kon xam naa ñu bëri retiré nañ seen candidat bi bu yàgg yàgg yàgg ndax fii combat Ziguinchor bii combat amu fi Ziguinchor nag dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am particularité ci man ndax bu may def ENA ñu war a jël ay stage dem ci région yi dañoo def tirage ma waroon dem Thiès